aca mbokk yi ñu dem ci combat spécial bi nga xam ne moo sës rëkk ci grand combat bi diggante caatu kawre moom la ñu jàkkaar lool moo toj nan bi noonu candum doo moo ñu gannaaw moo takk morso bu xonq bi caatu kawre dafa mel ni ci seex ñaa la mujjee seex ñaa la mujjee baral fii ci aram bi daan ko def ko benn voyage sama xarit ba seex ñaa borom Thiès baat ak tontu la candum doo Thiandoum 2 Bour Sine Moustique ndeysaan Thiandoum 2 Moustique la mu jë ndeysaan Thiandoum 2 Thiatou Kairé Thiatou Kairé la jàkkaar lool ñoom ñaar ndeysaan ñoo tolloo taxawaay mais doole beneen affaire la Thiandoum 2 Thiatou Kairé Thiatou Kairé dafa mel ne daanoogul hoo hoo Thiatou Kairé déggagul muñal xalab dali foor baa nga noona moom la jàkkaar lool moo ràngoo morso bu xoox bi ndeysaan Thiandoum 2 moo ñëwoon gannaaw Thiandoum 2 moo ñëwoon gannaaw dafa mel ni Thiatou Kairé moo dirigé combat bi xool ci yaram caatu Kayré moo ëpp maas mais doole nag beneen affaire la Moussa Faye lamb ji ma nga fële ca Brésil ndeysaan sama xarit ba nuyu naa ko moo a doon naan doole ak maas bokkul doole ak yaram bokkul góor yàlla dëgg bala nga bala nga gaa xam ngeen runkum daje ku ci nekk ñam sa morom caatu Kayré mii na mel ni kuy dóor waaye dóorul. caatu kayre mu ngi dox ci kaw candum de ndeysaan candum de moustique la mujjee bëral caatu kayre seex ñaa la mujjee bëral ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo di déglu wante caatu kayre moo dirigé combat bi attention caatu kayre cokk rokkos na benn mais est-ce que dal na caatu kayre sokk na benn foqante na nuy baaram fupp wante ndeysaan li mooy combat spécial bi buñ ci jógee ci grand combat ba la ñu jëm attention la ilaha illallah candum de eh attention la ilaha illallah eh, candum war na ko ndombo candum war na ko ndombo kayra est-ce ci génn kayra est-ce dañ ci génn eh kayra génn na ca kayra rëcc na kayra junne la dugal na loxo ba bal na ma ngay dajale day takk caatu kaara ngay dajale bët na la ilaha illallah da koy sukkoon bi wala da koy tegal seize wala da koy la koy def caatu kaara caatu kaara ndaanaan la caatu kaara candum doo la ilaha illallah oho arbitre sufle na am na ardo wala lan la arbitre na mu xew lan moo xew lu arbitre protest à daan moo wadd protest à daan moo wadd waaw waaw càndum protest à daan dafa wadd caatu kaare la protest à daan wadd cay caat damal raxas ko solaat ko dañ koy jox avertissement wala du jël avertissement mbër mi di ko di ko arbitre. bi kon arbitre yi fu nekkoon arbitre sëf la waat na dafa mel jëlul avertissement nag arbitre sëf la waat na càndum de caatu koyre caatu koyre la ñu jàkkaar lool càndum de woon ñu mbokk yi journée Dioufy production Mor Diouf samedi 9 décembre 2023 fii ci arène ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo di foqantey baaram di bàyyi wante ndeysaan candum dee mi ngi jiital tànku càmmoñ caatu kayre jiital tànku ndeyjoor fausse garde la garde normal ndeysaan war nañoo mën xeex war nañoo mën a bëre gis nga ca gis nga caatu kayre cokkaas na caatu kayre ak candum dee attention caatu kayre mii ma ne léegi attention door na ko mu hey caatu ka candum doo door na ko mu candum doo door na ko mu candum doo door na ko mu laa ilaaha illallah hey hey ana candum candum doo door na ko mu